salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 10 mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb la lañ xëy commencé ko yëglikaay ba nag tey bu mu xëy daal borom ab xam-xam ci wàllu boxe la xëy seeti ñu naan ko Papa Ndiaga Cissé nekkoon ñaay da ca di di ab boxeur ancien boxeur moom nag moo xëy di wax ci Eumeu Sène Modou Lo Lac de Guiers 2 ci seenum xeex moom daal ancien boxeur ba la moo xam ne daal nee na kii di Eumeu Sène day ah ci côté jàpp ne dese na caa na caa daal fort waaye comme ko séqal nag di moom ancien mooy wax ba ne ci côté bagaar moom ah Modou moo ëpp ay saas loolu mooy ay waxam booy ñang itam ñëw na ci moom nee na day ab xaarkat piir la xaarkat daal la ko jàppee moom Papa Ndiaga Cissé waaye nag am na keneen koo xam ne tamit wax na ca moom moo di Lac de Guiers 2 nee na Lac de nekkul vrai penseur comme vrai penseur bi ko nit ñi fooge daal moom daa jàpp ne nekku ca ñii moom ñu doon xaar vrai combat itam wala seeni combat yu dëggal ko day sunu làmb xëy tey dafa taxaw seetlu nee na Gris Bordeaux Bombardier Ama Baldé Tapha Tine nee na jàppal ñaari paap ya daal la jàpp ne combat yi day ñoo ko polombé ñoo ko ne raaj tëj daal demuñu cëng dikkuñu ca mbay laar ba ca njëkk mu yëgle kaay bi ne na mooy Pape Thialis Faye moom Leewtoo production beneen Pape ba mooy borom Pape production di Pape Abdou Fall ñaar ñi nag la ñu ci ñaari combat yii waaye daal dafa mel ni fa la lépp doxee tàbbi géej xaw ñoom la wala ca mbër ya la sunu làmb xëy tey samp loolu di ko laaj leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko ci fii nga xam ne nii moo di sunu làmb moo di Garga Mbossé ak Moussa Ndoye mu mel ni kii nag daal ne nañ day tey jii dañ leen di ca ministère des sports koy def nag moo di ministre ba nga xam ne moo yor wàllum sport ba di Moussa làmb ba tey dañuy continuer nag ci yëglikaay bi nga xam ne nii de moo di sunu làmb kal wala boog kii nga xam ne waaw kal daal bu la neexee sax nga wax lool moom moo daan bu yàggul Ousmane Gandigal ñamuy laaj nag nee na bébé Saloum wala Garga 2 nee na ñii de samay adversaire de taille lañ te làqutu bi la ñu war a bàyyi te génn nag ose jël ma ñu bëre benn combat boo xam ne moom léegi leer na moo di leeru jaan ak wulli wulli waat yëgle kaay bi day xamal na ñu ne day li leer ba leer daal mooy jam production moo officialisé boobu combat mois de juillet nag la war a am leneen loo xam ne tamit war naa am bu nu woor ba woree ca Jurbel Assane Ndiaye fa jaar yëgle kaay bi di sunu làmb xëy tey wax nu ko kii nga xam ne mooy Siteu bu Jurbel ak doomu Mbàkke ñu ne après Korité lay doon muy loo xam ne tamit lu nar a méttee métti la waaye koo xam ne tamit buñ Korité ba pare tëgg làmb mooy idaali ñi ngi fa nga xam ne moo di ca mbàkke professeur Mané ak booy ña ak booy ñaa bu bi bi nga xam ne moo nekk ca mbàkke day la nar a tëgg yëglikaay bi suñu lamb xëy tey dina ko wax arobas ak booy mankaañ le 27 juillet yëglikaay bi suñu lamb tamit wax nañu ne day Mor Mbay officialisé na boobu combat leneen loo xam ne tamit dañuy dem fekk ko fii nga xam ne nii moom moo di ci biir fii nga xam ne nii moom moo di Leewtoo Leewtoo daal mu ngi nu xëy di nu xamal ne day jàpp leen altine ji ñu jëm daal Zos moo woote ab conférence de presse ca Radisson waaye nag nee na quinze heures ba seize heures waxtu daal mbir ya ca lay am bu waxtu wa jeexee fa la ñu koy yemale waaye leneen loo xam ne tamit di ngeen ko xaar ci Leewtoo TV mu di vidéo boo xam ne day Max Mbargane mu lamsaar mooy wax ci ay combat Lac de Guiers 2 Boy Niang joxe na ca xalaatam Eumeu Sène Modou Lo wax na ca la waral si année balance itam moom ñëw na ca wax ca waaye leneen loo xam ne day ko ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di fii nga xam ne moo di Les Échos Yékini Senior Yékini Senior nag la mu xëy di wax nee na kii di Sa Thiès daal dina kii Balla Gaye dafa war a jël awaas bi nu bëree moom daal loolu moo di ay waxam waaye lenn am na Aline Seyde nee nañ ñu dey sunu làmb nu ko wax ca tuus ba dem na itali waaye ambulance itam moom fi mu nekk nii daal air bi la bëgg jël moom it voyagé Talla Ndiaye maak yow mbaa du nu seet fu nu aw mbër yaa ngay dem mobile bu garaayaf dem na États-Unis bëri ki dem Aline Seyde bu écrit wàllu nañ mu nga Italie Talla foo bëgg a dem man moom xam naa New York wala fële Los Angeles est-ce que du gën ci man foofu nekk kay taala njaay pata sama gënal ñam bi kuñ ci tëj sa avocat daa baaxul ajjuma ji balu naa ñëpp ak di baal ñëpp ak yàlla na yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xol bu sedd yaram wu sedd du mën a ñàkk njaay taala bi yëpp ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen seen revue de l'arène comme ni niñ koy defee saa su ne mais balaa boobu Babacar dañuy daal di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq ci ajuma ji tey di leen ñaanal ajuma euh, jàmm ak salaam xéewal gu bëri jàmm ju sax di ko ñaanal képp koo xam ne rek euh, yaa ngi Sénégal wala ak foo munti nekk ci àdduna Babacar nuyu naa maa lay fay Aïssatou Faye ah di nuyu ñuy suivre comme ni nga la àjjuma bi jëkk si weeru koor gi ñu ñaan yàlla rek yàlla na yàlla nanguñu njëkk ci koor ba fekkee yu lépp daal woor si jàmm wooree si jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu ñuy suivre bi ak ki nga xam ne nii mooy euh, Papa Ndiaga Cissé moom mu ñëw euh, ki nga xam ne mooy Modou Lo ak Eumeu Sène seen euh, seen xeex ku nekk mu wax ci ni nga xam ne nii mooy sa foro pour moom euh, kii di Modou Lo moom xeex bi nekk na ci à l'aise tuuti mais ki nga xam ne ni mooy euh, Eumeu seen am na si ay jafe-jafe parce que chaque fois même chose lay indi muy laaw te boo seetlee laaw yi ak comme euh, amu rallonge bu gudd day tax du mun a jot ay ay cible comme ni mu waree waaw loolu de ancien boxeur koy wax moo ko wax muy Papa Ndiaga Cissé boobu nekkoon ancien boxeur si ñaay bu Pikine ñu koy nuyu di ko ziar di ñaanal yàlla mu yàgg fi ak di ñaanal bépp doomu aadama loolu mu wax nag jàngatu technicien la technicien nag su waxee yaakaar naa fi fi mu teg ay waxam ni ñu war nañu mën a xam ne que ci xam-xam la koy teg parce que lu mu def ba bàyyi ko la kon am na lu mu ci xam loolu mu wax tamit ci Eumeu Sène seetlu nañ ci ay xeexam moom xeexu jam bariwul ñu koy faral di gis mu koy def xeexul laaw la faral di gis mu koy def xeexul laaw nag ci koo xam ne dañ jàpp ne ndaama nga des fois mën na la désavantager ci biir combat euh, combat bu nga xam ne li li li lutte la yaa ngi parce que des fois mën nga ko def ñu wàcc jël la boo xoolee xeex na fi xeex bu metti diggante ma Gris Bordeaux keroog boo xoolee xeex ba xawoon na ca am ay jafe-jafe te xëy na yu mel noonu moo ko koy yóbbee kon bu ñu demee tamit bu dee ci côté adversaire am comme ni mu ko waxee Modou Lo gis nañ ne que ci côté xeexam fi mu gën a dangereux sax mooy ci corps bi foofu moom à chaque instant gis nañ saa yu koree mbër bu la bàyyee des fois yow mu nga dem ardo kon xëy moom gis-gis boobu mu am noonu mu nekk kii moo gën a avantage ci xeex muy Modou mais ëmma xëy laaw bi moo tax mu na ko nangu mais ko warul dal mën ko warul dal mën na ko ndil jafe-jafe kon daal nañu dégg moom li leen wax xam ne ancien boxeur mooy wax ku ci nekk rek amélioré parce que pour man daf leen yokkal daal ci seen xam-xam waaw ci li ñu doon bu ñu jógee foofu dem euh, si beneen euh, yeneen combat laay wax ay revanche yoo xam ne ni ñu ngi ko doon xaar diggante ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ak euh, Bombardier diggante Ama Baldé ak Tapha Tine suñu lamb di ñu xamal ne nag ñaari pape yi ñoo téye revanche yooyu parce que ñoom lañ ci doon dégg muy Pape Abdou Fall ak ki nga xam ne ni mooy Pape Thiaris parce que déggoon nañ leen ñu bëggoon na yooyu revanche waaw loolu day mooy li yëglekaay bi daf tey jàngat waaw muy loo xam ne tamit a ah, dama yaakaar ne ñoom comme ñoom ñoo waxoon ñoom ñaar muy Pape Abdou Fall Pape Thialis Faye que ni ko ba mbër yi ak seen staff yi ah, na ci ñoom seen côté la taxawee parce que ñun ci gëstu yu ñu def staffu yooyu moom muy ñaari combat yooyu muy waa Fass di waa Mbour pare nañ ngir ci li ñu mm, gëstu mais nag comme tamit xëy na ñoom dañu xalaat ne que combat yi buñ ko tëggee comme niñ ko bëgg a defee ren du ni mën a demee xëy moo tax ñaari pape yi bëgg ko rek mais loo ci moom ay combat yu neex parce que ñaari combat revanche yu neex daal peut parce que ba ba le 31 juillet su ma yëpp jël nañ ko kon nag defe naa tamit sooy taxawal lu toll ni Ama Baldé Tapha nga xam ne tamit soo koy tëgg il faut xool espace bu nga xam ne boo ko fa defee sa publicité ne mën a jàll communication bi lépp mën a jàll pour que boo ci duggee ak jàmm nga génn ci ak jàmm parce que tamit ku nekk loolu nga a souhaité ki jël ay dugal ko fenn ngir di ci wut dara daal uh-huh. Babacar ci euh, kii di Garga Mbossé ak euh, Moussa Ndoye tey nañu dem euh, ci kanam tuuti ci ministère des foofu la leen kii nga xam ne mooy ministre bi Matar Ba di recevoir ndax tamit daf leen exemple ci fair play bi nga xam ne wane nañ ko ci seen combat bi. waaw loolu moom dafa rafet parce que tamit nit ki bu fekkente da ngeen seq bés entraîné li ngeen wax na entraîné ànd ak ñi ngeen war a àndal bésu combat ba ñëw ngeen jaay communication bu combat bi bés ba ñëw ngeen wane seen bopp ci bëre ak xeex yàlla may kenn ki ndam kenn nangu ko defe naa loolu mooy fair play te Moussa Ndoye mu daanoo daanu lu jafe ci combat bu toll nga ñàkk ko wax bi mu daanoo daanu ci micro Leewtoo la njëkk a waxee ka ne nangu na li ko dal garga ba mu waxee ci micro Leewtoo dégg nga la mu wax kon moo lay ne fair ba bu ko ministre bi seetloo ak ñi àndal ba woo leen ngir fas sargale loolu ñu def kon loolu day jàngal que ni képp di jongante na jiital fair ci biir boo ñàkkee nga ñàkk avec maanaam ak sa dignité boo amee tamit nga ànd ak sa humilité daal dafa am solo waaw ñu dem euh, si ni nga xam ne moom na nee na nangu jël li nga xam ne waaw combat la de seen diggante moom comme la ma ci doon wax rek diggante Yékini Junior ak Sa moom làmb ju mën a neex la comme noonu mu ko waxee tamit ci les échos ah lu war mën a nekk la bu fekkente ne promoteur am na pour man ñoom ñaar war nañu mën a bëre de parce que Sa Thiès Yékini moom li leen boole ci làmb fi nekk nii bëri parce que pour man ay adversaire de taille lañu combat boobu tam combat bu neex neex la mais Babacar mu xool fi Yékini Senior jógee mu bañ combat bi Yékini Senior boo xoolee ci victoire la mu jógee wala non si défaite maa ngi jégalu parce que dafa daan mu Modou Anta toog benn diir bëréewut ñëwaat bëreeg Tapha Tine Tapha daan ko mais pour man Sa Thiès Boy Niang da daan kon yaakaar naa foofu euh, pour man war nañu mën a bëri ah gisuma lu war a man tax pour man Sa Thiès bañ Yékini Junior de non non non Yékini Junior gisuma lu war a tax mu bañ Sa Thiès pour lamb boole na leen daal actuellement waaw waaw Babacar ñu jóge foofu dem ci Zos Zos eh, nga xam ne ni annoncé woon na bàyyi bëreem mais nee na dafay ñëw eh, lundi incha allah dafa séene jàkkaarloog presse bi ci benn hôtel ñëw wax ci li nga xam ne mooy ay activité am mooy don de sang bi nga xam ne ni bëgg na ko def ak li nga xam ne tamit mooy actualité lamb mu nekk benn ko eh, ndaje boo xam ne lundi la incha allah. waa Zos de ñu koy nuyu di ko ziar waa moom ndeysaan boo xoolee bàyyi na làmb léegi nag ngi yëngu ci leneen mbir yoo xam ne ni euh, parce que doona sax moom yaakaar naa ne ah lu am njëriñ la waaw rawatina parce que tamit nit ñaa ngi ci hôpitaux yi des fois di am problème yooyu bu yëngutu ci yu mel noonu ak yeneen i mbir du ñu mën a def lu ñaanal ko yàlla yoon boobu nga xam ne moom la ko jël moom la jël pour sénégalais yi wala pour afrique sax comme ni mu koy waxee yàlla na ko ci yàlla may ndam leneen li ci des dafa woote tamit lundi conférence de presse ca euh, Radisson ah yàlla yàlla nañ fekk leen di ak jàmm dem déglu ko ñaanal ko yàlla daal li nga xam ne nii moom lay xeex te mu ñu jàpp na njëriñu population bi la yàlla na ci am ndam képp koo xam ne daal yaa ngi uh-huh. jeexal ak ki nga xam ne ni mooy uh, Max bu yaatu mu ñëw ci li nga xam ne ni mooy saison blanche ñëw ci li nga xam ne ni mooy écurie Lansar ci foom ak espoir yi fa nekk ak ñi nga xam ne ni ñooy ñi uh, ñu fa yàgg gis ñoom Siteu ñoom uh, ñoom Tidiane Faye ñoom ne ko réeli ñoom ñëpp ñoo tamit euh, ci li nga xam ne ni mooy Lac de Guiers Boy mu nekk waxtaan bu yaatu la xam naa dinañ ko suivre ci Leewtoo TV wax na ci combat yu bare bare bare bëri wax na ci écrit Lamsar Boy Niang Lac de Guiers Eumeu Sène Modou Lo ak li waral si te yooyu yëpp am na muy vidéo boo xam ne daal di ngeen ko seetaan yow yaa ko jëli woon yàak Biram Ñëng ak yàgg encore une fois ñu nuyu Père Max di suñu père moom itam yàlla def mu nekk nit ku nga xam ne daal yàlla boole nañu ñu koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram ndax itam Aysatu dañ koy ñaanal ñëpp loolu ñu ko ñaanal ko loolu li ouverte maanaam ouverture bu mu am jëmale ko si nit ak neex deretam waaw nit la koo xam ne daal waaw vraiment nit la ku nga xam ne daal waa borom waa bëri jàmm lay waa moom ku bëri jàmm la daal waaw moom nag suy wax si làmb defe naa képp kuy nitu làmb war nga ko mën a déglu ndax li muy wax ci làmb dindi ko day jafe des fois waaw Babacar ci loolu la ñuy ci seen revue de l'arène ñuy nuyu Mame Talla suñu Baye Fall bi ci caméra bi di nuyu Ousmane ci montage ak équipe Leewtoo TV bi yëpp ñu nuyu képp koo xam ne rek yee ngi dooleel à chaque fois di nuyu sama borom kër samay goro samay njëkke sama yaay duma ko fàtte di nuyu nogay sama rakk ba ci Italie ak borom këram Amar Gueye Mado duma la fàtte su kay na ñoom ñëpp madame Sall Karo nuyu naa la bu baax Ange Gueye madame Cissé nuyu sama seet bu bees boobu maa ngi koy nuyu bu baax ak képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg Leewtoo TV Babacar am na solo ñuy nuyu ñëpp ñuy suivre ah, rawatina internet yi nga xam ne ñu ngi topp Leewtoo fu ñu mën a ne si àddina bi di ñu bëgg suba ak ngoon ñoom xam nga Mamadou Kaolack Mamadou Kaolack Diallo depuis Lisbonne waa Portugal fépp fu waay mën a nekk daal tuuti yaay Sarr duñ ko fàtte depuis Espagne Khady Rose Ndiaye nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp balu ñëpp ak ñaanal ñëpp jàmm si ji di wax ne que nag tey gis nga la seex bu wulli de maam seex borom Daaru Salaam borom Daaru Salaam création moo ma génne fii di ñaanal ñëpp réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu ah, la bu ñuy suivre à chaque fois di leen jox rendez suba incha allah